tey dañoo ñëwoon doon may tànn Pikine Nord pour faj xale yi daara yi gratuitement may leen ay médicament ci ngoon ñu jël ab prix décerné liggéey bi man en tant que maire may def ci loolu. loolu nag li ma ci neex mooy du cuune moo la ko def du coomo moo la ko def ndaanaan Amnesty International ci organisation internationale yi ndaanaan la fii ci Sénégal ndaanaan la ci Afrique ndaanaan la ci àdduna bi donc si la ndaanaan gërëmee da nga war a sant. dina wax ne champion bi ñu ma def pour accompagner leen. ci plaidoyer pour wax ak yeneen maires yi pour que mbir mi gën a yaatu ci collectivité territoriale yëpp ah nangu naa ko donc ma koy wax ne am na mission bu ma koy laaj am Amnesty International jox ko collectivité territoriale yi dañoo soxla également ni xale yi amee soxla protection collectivité locale yi dañ soxla protection dañ soxla ressource am na si bëgg naa dégg seen kàddu ci loolu muy toog président de la république ci àdduna bi di wax ne jàppa leen collectivité territoriale ab maire bu am vision ab maire bu am ay programme am ay projet ba pare mu naxasaay parce que xaalis baa ngi dem feneen te ñëwul fii ñu koy def peut-être ci wàllu environnement ci wàllu yeneen nañ koy def aussi l'accompagnement des politiques de développement des collectivités territoriales